amma ñi nga xam ne suñu borom daf leen daf leen daf leen a joxul jagle. amma ñi nga xam ne suñu borom daf leen a joxul jagle. bàyyi leen ak seenu jagle. bàyyi leen leen ak seenu jagle. loolu nag loolu nag mën nañ cee ndax euh, buñ nee buñ nee sariya rek. buñ nee sariya rek xel dem ci Baay Faal. xel dem ci Baay Faal. waaye suñu yoon nekkul ci yoon. waaye ñoom suñu yoon nekkul ci ñoom. sëriñ bi nee na ñi amul jagle. sëriñ bi nee na ñi amul jagle. nañ leen bàyyi ak seenu jagle. nañ leen bàyyee ak seenu jagle. ngeen xam ne suñu borom daf leen daf leen daf leen a joxul jagle. am naa ñi nga xam ne suñu borom daf leen a joxul jagle. bàyyi leen ak seenu jagle. bàyyi leen leen ak seenu jagle. loolu nag loolu nag mën nañ cee ndax euh, buñ nee buñ nee sariya rek. buñ nee sariya rek xel dem ci Baay Faal. xel dem ci Baay Faal. waaye suñu yoon nekkul ci yoon. waaye ñoom suñu nekkul ci noonu. sëriñ bi nee na jagle. sëriñ bi nee jagle. nañ leen bàyyi ak seenu jagle. السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله وعليكم السلام ورحمة bi mooy thème bi mooy lan Baay Faal yi julli bàyyi woor Baay Faal yi julli bàyyi julli bàyyi woor bay julli bay woor lan moo ba pare de ba pare de at atte No No nee nañ. c'est le comble quand même seen sëriñ seen sëriñ moo ko moo leen ko. loolu loolu dafa xorom. loolu vraiment c'est boo koy xalaat da ngay. wallaahi da ngay ne man sama xel sama xel bi daa nekk di périer wala. Ya, ya. bàyyi dem Màkka. bàyyi Fall musa dem Màkka mos koo gis. duñu natt asaka. waaw baax na dégg naa laaj bi léegi. suñu borom dafa wax daan ne. julli dana leen fegal dana leen fegal ñaawteef jëmaleen ci baax yow koo xamante ne dafa ne inna salaata tanha an inna salaata tanha anil faxsaai wal munkar loolu suñu borom moo wax julli da leen leen fegal ñaawteef jëmaleen da da leen fegal ñaawteef jëmaleen ci ci ci jëf yu baax saw bi saw bi fa lay jógee saw man la yakana ci mom la mom rek taal micro ci moom la doo sori musique bi sëñ bi wala nga wani ko ci cheikh nu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eggale aaya bi de wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sun borom daf ne de len julli ndax julli da len fegal ñaawtee fi jëmaleen ci baax loolu la wax. Hmm. léegi koo xam ne da nga judd. léegi aaya lan la ak ak ñi nga xam duñu julli. sëñ bi maanaam bul ma bul ma di dagg xaar fu ma paree fu mu waxee ba noppi boo ma laajee man incha kii dafa waroon wàññi musique bi wala mu déplacé wu tam. léegi léegi yow doo sori sango bi kii bi gën a neex. Ah. ñooy jégalu Cheikhouna wañi sa son wala nga déplacer wu tuuti rek nga bañu non son bi son bi du sama téléphone man sama sama nek la né fi dafa dafa dafa am dafa am ay musique. waaw bu fekkee nak musique bi dafa leen dérangé trop trop trop mom man na man na kité wax dëgg yalla bon xay xayr incha allah waxal waxal waxal man batam la gëna dégg ko son bi waaw inshallah légui mané sun ne. yonent bi dafa wax daan ne ko bàyyi julli yéefar nga loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te it gëm nañ ko gëm na gëm nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax waaw waaye ñun ñun ñun murit ki tax nu xam sun borom ki tax nu xam àqi sun borom ba di ko jaamu ki tax nu nu nu nu judd nekk ay jullit ki tax ki tax maanaam ku nu xool gis ak baax kooku kooku sëñ Touba te sëñ Touba dégg sëñ Touba du sëñ Touba damaa du loolu de. xam naa de wax mu indi wax wax mu indi wax. wax mu indi wax wax indi wax. xam nga damaa bi ay Baye Fall yoo xam ni duñu du ñu woor ay yéefar ñu yabal leen ngir ñu àtte charia. lii mooy damaa bi loolu la mooy cëslaay bi. yéefar buy àtt sariya. buy àtt léegi ab jullit buy naan sàngara lan mooy lan mooy lan lan mooy àtt àtt bi. jullit la bu def bàkkaaru mag. maa maanaam mbir yi du caage ne ay lépp ci lépp ci litlaam da dafa am sukkandiku dafa am dafa am maanaam dañ ko war a leeral déedéet. islam lu ci bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom leeralu ko lan moo tax mu mu mu def lii waaw. lu weesu julli ci farata yi comme lan. waaw ci farata yi. waaw ban farata la yonente bi sallallahu alayhi ci ponk l'islam ban la ci wax ban la ci waxul ban moo ci amul cëslaay ponk l'islam waaw léegi par exemple koor kor musuma musuma musuma jàng ah. fu fu ñu waxee ne ne suñu borom nee na dee leen woor ndax nangam ak nangam ak nangam ak nangam dafa ne ah, dee leen woor dafa ne yàlla waxul ne yàlla dina amoon aleykum siyaam waaye daf ne kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun laallakum laallakum tattaquun boobu noonu lan lay laallakum laallakum tattaquun laallakum la wax laallakum ngir ngeen ragal yàlla ngir ngeen ragal yàlla peut-être laallakum peut-être la wax peut-être mën naa am mën naa ñàkk bañ am laallakum laalla day firi laallakum te tamit te man tamit dama ne te dama ne dama lu tax laaw lu tax lu tax waxul li muy jëriñ de lu tax ah, lu tax nga indi lu tax ñuy woor ok léegi moom dama lay ku bàyyi julli yéefar la wala yéefar ku bàyyi julli yéefar la ok léegi ku bàyyi julli yéefar la ok léegi yéefar est-ce que mën na atte charia déet déedéet. ah comme Baye Fall yi est ce que Diop Baye Fall bi bàyyi julli boobu bàyyi woon est ce que boobu war na am na droit dem naan ba opérer di lellu ñooy dégré di dagg mees ñooy leetu mees ay jullit est ce que am na droit la. waaw. ah yow yaa ngi contradiction de. sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Tuubaa dafa ne. déet xaaral euh, xaaral doo xaaral yow da nga ne. ku bàyyi julli bàyyi war yéefar la lii nga wax. ku bàyyi julli bàyyi woor yéefar la moo ko wax ma ne la est-ce que yéefar na sax fokkumaa léegi ñun ñëpp dëppoo la mën na àtte charia nga bàyyi faal bi bàyyi julli bàyyi woor jàpp da koy wàcc lu tax muy dem ñu koy digal muy àtte charia ci nit ñi te yéefar la te ñoom muy àtte charia ñoo ko gën mi ngi mel ni par exemple xaadi bi àtte daf daal di mm. muwaat nit ba bañ war koo rey mu wax nit daan ne ko daan ne ko rayal diw mu wax nit ne ko ne demal nga rey diw <laughs> bul jaxase carte gi euh, jabar jabar faam manam ki ki delu wa delu wa déglu wa dooro ah. bul jaxase carte gi ah. yow da nga legi and nga ak man ni ku bàyyi julli bàyyi wor yeufur la yeufur la ànd ngaat man yéefar du atte sharia mo xam mo moo koy atte moo koy jëf ak bopam ak loxam moo xam dañ koy yónni parce que dafa bokk ci charte atte charia ka koy def di ko di dindeg loxoom mu nekk jullit Araabi Saudi du jël ab yéefar ne ko ku njaaloo dama nga dóor ko bu ñu xool kay caw kay cawaate yéefar di cawaate déedéet du kooku mooy cawaate kuy cawaate dafa bokk charte nga nekk jullit bay faay bàyyi julli bàyyi woon jàpp ni wàcc la ay yéefar lañ léegi naka la naka la yéefar di ëlbatikoon naan day atte charia da koy jëfee waxuma ne Baye Fall ay yëfar lañ dama maanaam bul bul li ma li wax dee ko diglu nga koy waxaat dama ne dama ne man mii Baye Fall la man Baye la man. boo jawewul boo jawewul jawewul wax Baye Fall waaw moom jafe na li Baye julli yëfar la mais moom jawewul jawewul tudd Baye Fall. waaw léegi maanaam da bëgg da bëgg déglu déglu maam yow mi ci kaw nii maam li laay war a sóoli doo doo ñu may ñu waxtaan li laay war a sóoli comme kii sëñ bi ma laaj. wax li laay war a sóoli li laay war a sóoli kenn du ko wax loolu bokkaale la. pourtant moom waxul dara pourtant moom deful dara lillaahi wa rasuuli lu ñu lu ñu wax leneen. sooy wax da nga naan ngir yàlla rek mais bu ci teg keneen. baax na baax na léegi kon kon la moo tax boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah la moo tax mu ñu la la moo tax lool la moo tax lool. déglu déglu loolu bokk. daa nar a bàyyi. loolu shahada tayni la ngay seede ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom kenn du wala war rasuli mooy lan mooy lan mooy mooy mooy la messagerie d'Allah la messagerie d'Allah xadim yi li ma wax mënoo fexe fexe ba mu nekk bokkaale yàlla xam na sëñ ñëw si débat bi waa kaa yaatal waa kaa waa ñëwaatal waa dellu si dellu si defal def naa demi def naa demi waaw macha allah la xeer. léegi teg boo leen fàttali benn point dañuy xaar nga sëkkër rek pour ñu langaamu ci sëkkër. voilà dañuy langaamu foofu quoi. léegi yow. waxaar waxaar léegi yow. ku moom sëb dëkk ku am. waaw waaw alhamdulilah. léegi da nga ànd ak man di ku bàyyi julli bàyyi wóor yéefar la loolu ànd nga ci man n'est-ce naa ci yow. ànd nga ak man di tamit yéefar amul droit àtte charia. waaw ànd nga ci man. ànd naa cee léegi yow d' accord nga ni am na dañuy tuddee Baye Fall ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp julle wàcc na leen d' accord nga ko. déedéet ah, tuddee seen bopp Baye jàpp ni ñoom wàcc na du ñu julli. déedéet dafa am lu ñu remplacé julli ak koor. maam Cheikh am lu ñu koy remplacé. waaw maam Cheikh Fall joxe. Ah. joxe. Ah. moo gën julli joxe moo gën julli. maanu ah. moo gën koor loolu maam Cheikh Ibrahima Fall loolu la wax maam Cheikh Ibrahima Fall fan la maam Cheikh Ibrahima Fall fan la ko teg fan la ko wax wax bii muy tuumal maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall fan la ko wax ba pare fan la ko wax d'abord maam Cheikh Ibrahima Fall moom fan la ko waxee maam Cheikh Ibrahima Fall mag ñi mu daan toogal ñoom la ko wax ñuy dégg mag ñee ko wax mag ñee ko nettali ay nit nit nit ñi daan daan ñu koy nettali yan mag ah, comme nettali la quoi comme nettali la du alxuraan du xadis du aaya nettali rek la déglu ma maanaam diine ji li ci dut li ci dut li ci dut uh, hadis. du du lii taxawal foofu man man lay bàyyi xadis ban aaya nañ nekk ci alxuraan léegi bàyyil xadis. alxuraan nee na. aqimu salaa wa atu zaka n'est-ce pas. alquran nee na wa amur ahlaka bis salaa alquran nee na ku dul julli safara nga jëm ba salakum fii saqar qaalu lam nakum bi musallin loolu leer na léegi joxe nga julli eh, xaalu lam naku minal musallin lam naku waa xaar xaar eh, xaar maa salakakum fii saqar lool waaw waaw de ñëwal ñëwal ok léegi aay yi leer na ci alquran ne ku bàyyi julli safara la jëm ku bàyyi julli yéefar la nga ñoom am na ñu bàyyi julli leneen lañ koy remplacer mooy joxe ah ma doon xaar joxe boobu nga indi ma aaya comme wala indee aaya ni joxe mën na remplacer julli waaw fan nga ma delloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax hadiisul ci xadisul qudsi déglu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadisul qudsi daal di wax ah. hmm. daan ne sun ne suñu borom nee na ah. képp kuy ŋàññi kuy ŋàññi waliyu yàlla yi suñu borom moom nga déclaré eh, guerre suñu borom nga déclaré guerre waliyu mooy kan daal di wax daan ne déglu déglu déglu léegi waa déglu di wax ne ah. waliyu ki nga dafa def ay ba ba continuer ci wala yu boo ko def farataam. yokk julli lan la ak woor. julli julli farata la. léegi xaaral léegi xaaral léegi xaaral léegi Ibra Fall moom da nga Ibra Fall wala ñu kenn du ko dégg ah. <laughs> non a wax. Ibra waxam kenn du ko dégg dañ ko war a gëm. Cheikh bi ngir yàlla doo taxaw moom moom nee na. ah dafa wax ne. ku def say farata ba pare laaj ko ma laaj ko ne ko julli lan la <laughs> mu taxaw ba si yàgg daal ne julli sëriñ bi maanaam yéen yéen maanaam maam affaire bi may wax àggalagu ma ko sax bul sori bul sori àggalagu ma ko sax àggalagu ma maanaam maanaam gis nga yéen maanaam gis nga yéen yéen yéen yéen jàlloo ko bokkul xaqiqa dafa am ak sariya dafa am cheikh bul dem foofu xaqiqa bokkul ak sariya cheikhuna déet déet maam yéen ñaari mbir ngeen waxtaan xaqiqa ak sariya waaw da nga def bay faali bi ay wuyu julli am na luñ koy remplacer loolu nga wax am na luñ koy remplacer waaw non ci ci sa micro ci sa micro sax da waaw da nga ne am na luñ koy remplacer n'est-ce pas waaw nga ne mooy joxe waaw ba la sa dalil nga ne Ibra Fall wara joxe gën junni ba la ay alxuraan yep di wax ni ku julli yi ku dul julli yeufal ya, ka yo nga ne ma joxe gën julli nga ne Ibra Fall ma ne lolou nga ne yow nee Ibra Fall sa netali man naka ngay bàyyi déglu naka ngay bàyyi yi wax di ku bàyyi julli yéefar la yow nga ne bàyyi julli bi am na lu koy mooy joxe ba laaj la joxe boobu amoo aaya amul dama ne la dama ne la dama ne joxe ah. yonent bi sallallahu wa sallam wax na nee na uh-huh. nee na sama maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nee na uh-huh. sama xeet uh-huh. duñ jug ci jàmm mukk ludul ba ludul ba dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo boddi wante dañoo dañoo bañante daal di wax daal ne bu fekkee da ngeen a bëgg a bëggante. Hmm. di leen joxante addi Cheikhouna Cheikhouna Cheikhouna. Cheikhouna dañoo am dañoo am temps parce que dafa am yow Cheikhouna yow fu nekk ngay jëm fu nekk nga bëgg a dugg. Cheikhouna dana laa laaj Cheikhouna li nga xam ne si dafa leer bàyyi julli ak bàyyi woon est-ce que tey mën naa remplacer leneen beneen mbir. indil ñu aaye alxuraan bi wax loolu mën nañ ko koo remplacer loolu lañ la laaj. déglul déglul déglul maanaam yonent bi sal maanaam Seydina Moussa alayhi salaam. waaw moom fu nekk léegi ba mu Seydina Xudaar daf ne ko. maanaam maanaam dama leen di wax. dama leen di wax dama leen di wax maanaam ne ne ne xaqiqa ak ak sharia bokkun rek waaw. daf ne ko daf ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani maa ullimta rushda loolu la ko wax mu ne ko innaka lan lan tastati'a maa ngi sabra. innaka lan tastati'a maa ngi sabra. sawaay dafal nag histoire Xadir Moussa amul benn relation ak li ngay wax yow da nga def. yow da nga def Baye Fall doo xaaral. xaaral da nga def Baye Fall di ay yéefar ndax ñoom julli ah. boobu am na luñ koy remplacer ma indi la indil ma preuve ci li wane ni ku bàyyi julli am na leneen loo ko mën a remplacer ci alxuraan ak sunna amoo aaya amoo xadis lu dul lu dul nettali lu nettali Ibra Fall neena xaaral rek da nga nettali Ibra Fall da nga joxe ngeen julli alxuraan lépp ay nettali la alxuraan lépp ay nettali la déedéet yaa jëf nettali yow alxuraan kan moo ko nettali yi iya, borom subhanahu kan moo ko kan moo ko nettali borom subhanahu wa ta'ala bu kan moo ko ok waxu Ibra Fall waxu est-ce que man kan moo ko nettali ay géwal ay géwal ñoo ko nettali ay géwal ay ay géwal ay ci Ibra Fall perlu ay alquran ah. julli ko sun borom daf ne hmm de len julli ah ndax mu len dakal seen ñaawteef teen teen xëcc ci ci ci ci ci ci jëf yu baax tanha anil faxsaay wal munkar lo sun borom moko wax wax daf ne dal ne dal ne kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun dal ne dal ne ah, ah فأما من بغل واستغنى وكذب بالحسنى أها أما من بغل واستغنى وكذب بالحسنى pour ñi ñi nga xam dañoo nay ba duñ nat azaka daal di wax ci daf ne daal ne fa man xajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima maanaam lu nekk rek ci ponk yi borom lu wax daane lii bu ngeen ko defee mën na leen a jariñ lii de waxul mu na leen jariñ de dafa ne loolu farata la yooyu yëpp ay farata la ay rukun boo ci bàyyi yëpp léegi yow bàyyi loolu bàyyi loolu yow indi nga ay aay yu bokkul yow nee nga yàlla ne dee leen julli ndax julli da leen dàqal ñaawteef comme kay loolu tontu na la comme yàlla dafa digal ñu julli comme ku ku bàyyi julli yow ñaawteef doo si doo si jóg comme Baye Fall du jóg ci ñaawteef. aha kay si Cheikhouna maa ngi lay Cheikhouna yàgg na te indi wu lu leer. Cheikh bi kay yow da ngaa am patience quoi. te parfois foog ñu seetaan tam ñi xam ne ñoom ñooy déglu parfois ñu ngi kii mais ñi di déglu day kii daal moom li yow bismillah waaye mais da ngay fay sa portable gaay ca ne kii bi sa sa sa portable dem da ngay dugg whatsapp nga ñëwaat quoi après boo ñëwaat dina dañ da ngay dem whatsapp après nga ñëwaat bul non mais mbokk yi bu leen am passant gis nga gis nga nu muy yàggee te du indi lay. c'est bon wala. dafa ba léegi tax na caane. non est-ce que doo ko wàcc après nga laat ko. day dugg war naa yor benn portable. xam naa day dégloo. xaaral da nga portable wala. da ngay fay portable yooyu non non non yow beneen téléphone sax de non non. da ngay fay portable yooyu ok dafa am demande ma jël ah. léegi da ngay def demande ma jëlaat la incha allah. dafal dafal beneen demande ma jël la naam euh, ku ci suuf bisimilah. kii moom dafa mel fi quoi. bul ko def grand écran de kii dégg naa day teg pour porno dindi ko gaaw. wala quwwata am nañ chance. allah. <laughs> borom veer yi mbokk yaa ngi bind ci suuf is moo nee day teg porno allahu alam mais. boo ko bu ko tegee rek mooy compte bi moom. dama juum de man ma waxoon sax dama juum dama jékki-jékki rek bës ko Baye Fall yi aay yu leen radd ak a kuy yàgg nii kuy yàgg ci kaw te amul preuve kuy yàgg ci loolu dafa am lu muy mais suy def hors sujet tamit day xaw compliquer si ñuy di déglu bu ñu yàggee rek na leen indi ñoom dañuy bëgg nettali ay xudar ak mu wak ñu seen ngi def ah, écho. baaxul soxna su baaxul de il faut. waaw ñu ngi lay déglu. da ngay dem whatsapp boo duggee whatsapp ñu ne voilà dem na whatsapp xaaral ma xaw a xaw varié asalaamaaleykum ba tey ba

Uh-huh. dafa leer naññ comme jant bi uh-huh. dafa leer naññ comme jant bi xaw ndax yéen a may déggam déet ñu waaye dafa am ñoo xamante ne euh, li yàlla wax ci alquran dafa am ñoo xamante ne seeni xol dafa am ay dafa am lu ñuul bo doon japp seeni cieur di dag ben ben du tax ñu gi du tax mu du tax ñu gis leer gis nga sunna leer ni mu leeré xel xel mu sel mo koy deg sunna dafa gëna yomb li fi nekk senegal lepp sunna ko gëna yomb waye duñ ko gis ba adunay tukki tarikh ni dundu tarikh duñu duñu gis li ngeen di wax wallahi lazim duñu ko gis xana yalla wacce yermandem ci ñom parce que man man lima gis Senegal, bi judo juddoo ba legi musuma ko gis ci benn dëkk te def naa 42 pays 42 pays def naa ko maa 54 ans waye diine bi am Senegal te man mi wax ak yeen awma alluwe yalla mi ma tim xatnako awma alluwe sama njang soriwul waaye lima gis ci senegal bi mo juddoo ba legi musuma ko gis ci ben dekk dañu réer reer gu metti nak te ñi ñi ko indi dañuy dunde askan wi su ma bugguma di dugg ci live di wax parce que dama yore institut bu rëy maa ngi dund sunna depuis quatre-vingt-douze ba léegi maa ngi dund sunna waaye li ma gis ci Sénégal yàlla rek a tax may wax yàlla nu yàlla defal yërmande rek alhamdulilah asalaamaaleykum amiin waaleykum salaam wa bi xaw na demee borde xanaa da ngeen sonn mbokk yi <laughs> tapotalin live bi waay non tey waa Sénégal ñoo am problème dugg TikTok quoi naam loolu la sàmm leen salaam wa rahmatulah bisimilah soowu kan ngeen déggul man wala waañ hmm. sëñ Fallou xaaral ñoom nee xaw ma kan la ñu déggul xaw kan ngeen déggul man ngeen déggul wala man xaw ma kan ngeen déggul laaj bi ci moo amatul son laaj bi moo amatul son. waa ji waa ji non la ñu wax waa ji la ñu wax ah bon doo doo nga yéegaat ma yéegalaat la parce que nee nañ Aga takk écouteur wala waa génnaat après nga demandé waat ahmadu ahmadu mais la ma ahmadu ahmadu xas sax xas sax mbokk yi nee nañ dégg doon ñu mi xaaral defar son bi ba ne sa xase juga. gars yi nee nañ ko xaaral ñu defar son bi son bi baaxul xaaral xaaral gaay yi ñu am na wax mom dafa bolaké microm quoi xamul tax lool. Karji ko xaaral mo wacc dafa mel ni kuy est-ce que du soxna si mo am problème. non non non non. non non moom la mo foo wacc kuy wax na fo mo wacc ñëwaat quoi. ahmadullah no genn la bi ñëwaat. parce que dañu ñoko def ah du kii ok Axmed dafa atal parce que gars yi dégguñu la ah. ah yow gars yi gars yaa ngi bind nee yow dégguñu la ñu rek la ñuy dégg léegi da ngay wàcc Axmed nga yéegaat ah ubbil sa micro ñu xool ubil Axmed ubbil micro bi ok wàcc na comme moom non yéen na ngeen waa ji xas yu ñu fi xas. Beren yàlla quoi yàlla buy fu man funke bi booba moo may fe ya. no, je presi la wala. Ak ñaari baaraam yi des. Do waji kay toj dab, ya ngay tar ngeen. Ciare, ciare bismillah. Dara jur yàlla, té ñu yàlla buy fukki la ñu jaamu. Waaw, bu toogee ci 16 bi ñaari baaraam yi. loolu suuf yi ban affaire la. nee na bu fukkee malaaka yi yëkkati aras. bu fukkee. subhanallah. su fukkee yéen yéen a dàq lem lu mu bind lu mu bind mokkal ko di ko tari. ok jàpp ci leen waaye ndax mi ngi mi ngi wàcc Thiaré bismillah ñu nekk ubbi dugalal Baye Fall ñu ñëw layal. non mais c'est yi kaa leen layal ñàkk julli bi parce que jullit moom. bu mu am na sànq. ba war sànq ma gisoon mu bind mun na nga jël ko quoi. ku bind sëriñ ngir yàlla nuuru laay dugal ko soo ko gisee si si demande yi. maa ngi lay di wër non mais nuuru laay da ñëw dugal quoi. Ah. ok woo leen dafa mel ne sànq gisoon naa mu bind yàgg na. ay faal yi dugg leen layal ñàkk julli parce que julli ay ñoom loo xamante ne yàlla gëmloo ko ko normalement war na ko mën a indil ay preuve leeral ñàkk julli bi fan la tegu caane caane yow yaa mën a activé sa nga am problème wàccal nga ñëwaat pour tapoter da ngay bës euh, fii Cheikh Alpha nekk foofu ngay nekk di bës sa baaraam bi rek après day génn ay kër noonu ngeen di tapoter allah daanaka sa micro bi boo xam ne ci suuf lay nekk quoi maa ngi leen di nuyu bu baax. naa yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah sant yàlla. waaw man de naa sax. bisimilah. waaye li ma li bëgg xam tuuti daal loo xam ne bëgg naa ko ma ci dimbali. Ahmadou ñëwaat na de. mais mel kii àggali mel maam lu ngeen ma mën a lu ngeen ma mën a lu ngeen ma mën a firile daal min husnil islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaxnii lu ngeen ma ko lu ngeen ma ko mën a leerale daal xëy na dégg naa ci version yu bëri naam mooy bokk na ci luy rafetal islaamu nit ki mu bañ a dugg ci loo xam ne yoonam newu ci waaw man nag foofu mooy sama problème ak yéen mooy maanaam xam nga àjjana yàllaa ko moom sawara yàllaa ko moom jaamuwuñ yàlla ngir bëgg a dem àjjana jaamuwuñ yàlla ngir ragal sawara dañoo jaamu yàlla ngir yàlla moo ñu digal ñu war koo jaamu comme ni ñu ko waxee ci alquran ni ñu ko yantu salaay salaam digale donc toujours damay seetaan euh, yii nii ngeen di ci débat ak murid yi di ci débat ak tijaan yeeg di ci deba ak maabis yeeg coow lu bëri lool damay gis ne am na ci yenn yoo xam ne ku koy def euh, kenn ku ne am nga droit gëm li nga xam ne yow moom nga gëm ndax coono ba mu tey ñi nga xam ne ñoom dañ leen a jàppe nit ñu réer ñoom ëllëgee loolu ñoom lay concerné ndax dama jàpp ne ñoom dara mënut a tax lañ nekkoon ñu bàkk ko dara ci àdduna moom mënut a tax lañ nekkoon ñu bàkk moom loolu moom li ma wér mooy mooy mooy seen wax ji ak yeneen yi wax mënut a tax ñu bàyyi li ñu leen jàpp lolu mom dara ci àdduna lu tax ñu bako motax fofu lay ne. lolu wax lolu mom bu wax lolu dara tax si àdduna ñu bako mom lolu lolu bayiko bàyyi am na ñuy baax am ñuy bàyyi de mais léegi xam nga luy problème bi. kon kon lolu mo moo ko waxe hadith waxee xadis da nga ma ubbee ak hadith dama lay délo benn hadith yéen dafa salaa salaam nee na man raa minkum munkaran falyughayyirhu yughayyiru yadi iya, fa in lam yastati fa bi lisaani gis yéen lu bon fa bi qalbi waaw wa dalika ad'aful iman yow xaaral yow saa ku gis yoon lu bon na ko dindi ak loxoom. waaw. su ko mënul na ko dindi ak làmmiñam. waaw. foofu la ñu nekk xadis bi gëm nga ko. gëm naa ko waaye yéen lan moo. xaaral xaaral xaaral indi sab xadis ñëw. koy bàyyi joxe sab bàyyi julli bàyyi woor lu bon la wala. xam nga bàyyi julli ak bàyyi woor ndax lu bon la wala du lu bon. loolu man taxul ma dugg est-ce que bala man li may wax maam boo boo wër samay wax bu ko wëlbati. da da ngaa ñëw indi sa xarit tontu laaj bi bàyyi julli lu bon la wala lu nekk lu bon. bàyyi julli ndax lu bon la wala du lu bon. waaye léegi ñi nga xam ne ñàkkuñoo julli wala ñàkkuñoo woor. loolu ñoom buñ ko defut ndax kan lay wàññi ak kan lay gaar laa bëgg a xam man. ba tax yéen nga bëgg ko combattre ci léegi maam maam maam Cheikh maam maam Cheikh loolu yàlla justement loolu noonu daf ñuy wàññi ñun en tant que jullit ñu gis ay nit yu nga xamante ne ñoom dañoo ne duñ julli laayewuñ leen biir buñ deewee yàlla mbëggal ñu ka yàlla dafa alak déglul aaya aaya dal moo laa la indil firndeel la ko aayu leer nañ loolu aaya la voilà loolu bokk na lu tax yàlla rëbb ay xeet mm-hmm. bokk na si mooy ñoom kaanu la yatanahawna anil munkari faalu ñoom daanuñu woon terante si seen biir seen mbokk diina lu mu doon def ñu xam ko daa duñ ko daanuñ ko woon tere yàlla daf ñoo tagg ñun sur le contraire ñun julliñ julliti dég nañ déglu woon tere mbokk bi ay aaya lañ lay tere incha allah waa déet xam nga da ngaa wax. Ah, Kaanu da sànq yaa ngi wax développé nga ay mbir déglu rek. incha allah mais yooyu développé xam xam nga da ngaa da ngaa wax. dañ lay tont lay tontu si point boobu point point boobu rek dèjà pour wax leen loolu moom yaa ngi dàq benn fondement boo xam ne fondement la si diine ci fondement la si bànqaas yi la yonent bi salaa moom justement xadis bi daf la ne nga bàyyi lu nga xam ne sa yoon nekku si justement islam dala jàngal ne sa yoon mu ngi si sa mbokk jullit lu muy def lu bon di ko fësal maanaam àq la àqam la moom bu mu am si yow nga laaye ko biir yowmal xiyaam boo ko laayuloon biir su mën ñu mën mosoo see wax dara yowmal xiyaam day plaire ah diw mii dafa dafa ma doon gis may def lu bon daanum ko daanum ko ne mbokk yi mbokk bu dee da ngeen luube tam ñu wàccee leen rek am yeneen choisir na ngeen déglu wala ñu déglu woon te wala ñu wàccee leen yeneen xool voilà yi doxalin doxalin bi ngeen def ni kenn du dégg yéen a ngi yéen ngi wax ñu bàyyi leen déglu leen ngeen développé point yu bëri sax si benn point rek ñu nekk di leen tontu ngeen ni rëppi buy rëpp bi, man tey laa mës dugg ci live bi di Yunus. waaw mais tey nga fi tey nga ñëw mës dugg ba di mënoo déglu développé nga ay point yu si benn point bu lay tontu rek mënoo déglu nit yi maam Cheikh dañ lay leer sa wax yi leer la maanaam wax bi nga lay wax bi nga lay yàlla ñun laaj ci keneen lu def lu bon sa wax jooju la alxuraan xaaral sa wax mbokk bi loolu la bëgg leeral man la wax lu ina kafaru min bani israil ala lisaani daawud daawud ak asaf lu tax mu rëbb leen kaanu laa yatanahawna an munkarin faalu kaanu laa yatana daawud laa yatanahawna an munkari faalu yunus mi xaw nag sax mënu koo wax moom moom am ñoo xam ne yéen da ngeen di wax sax de nga ne nga ne lan yow waaw yow wax bàyyi ko wax moom yow wax naa ko moom mu ne ma xaw na dafa wax daane daane xana munkari an munkari la wax ma ne ko xaw na an munkar waaye moom moom sax mënut a wax sax pour mu wax aaya bi sax pour mu normal yow yow bi nga waxaatee leeral nga ko ba mu leer. kan moo wax yow taril aaya bi yow kan taril aaya bi. Yunus lay wax Yunus mooy léegi yow taril aaya bi wala man lay wax. yow lay waxal waaw Yunus mi ngay waxal. Ah, Yunus pour moom yow yaay Yunus. <laughs> waaw ok léegi Baam Cheikh. léegi taril aaya bi taril aaya bi yow ju dégg. jëru ko man kay wax ah, rek. jaar na ko kay. loolu kay loolu moom dama ci leeral xam nga maam Cheikh maam Cheikh maam loolu indiwu fi da ngay déglu ñu leeralal la ay ay bi aaya bi xam nañ fan ban ban ban nekk dañ koo dañ koo tari aaya bu leer naaj tari ko aaya avant bi ci sori mu ñëw di mu ñëw aaya bi kay ne ko naaj da ngay déglu yàlla rëbb léegi loolu noonu justement ñoom yàlla def leen rëbb bokk na si lu tax ñu rëbb ba sax ñi nga xam ne ay yéefar lañ si banu Israël seen caractéristique moom dañ daanuñu woon terente lu bon ñu doon def ñu laaj la ba xam bàyyi julli lu bon la nga naan ma loolu tax ma fee jóg bu bu la taxul jóg waroo yéeg si laaj bi tax loolu mooy tam laaj bien non de ne maam Cheikh na day day ànd ak déglu ngir yàlla déglu <laughs> woo sànq yaa ngi wax ay point yu bëri su lu ngeen fi ay point yu bëri ñaar ba ñetti point kenn daggu la ñu to benn point rek pour tontu la yaa ngi dagg ni def sànq tamit saga, dang ma dig ma saga waxuma waxuma saga de dag la dag ak nit ma buy wax. non boo boo boo ma saagee di ko xam ndax ay ngay <laughs> ngay ci kan yaa fi de man dag la wax bay di dag nit yi ndax ngay tuddu saga ba ni drapé wu ma baylo baylo bul dema moom foofu parce que day day day non moom moo dugg foofu de bàyyi bàyyi détail yooyu maam Cheikh yàlla daf ñoo tagg si ne ñun dañuy digle lu baax di tere lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar donc ñun suñu yoon mu ngi si suñu mbokk jullit bu defee lu bon ñu ñëw ne ko laay ko biir yedd ko ni li nga def nii moom baaxul ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana yow tey sa doom pourtant tey sa doom bu def lu bon ah doo ñëw ne man na naa ko bàyyi sa principe buñ ko appliqué moom ñëppee sànku de tey jii am na ay Baay Faal yoo xam ne waar nañ leen ba ñu génn tey jii ñuy sant seen boroom ñu alhamdulilah ba yàlla bu ma booleeg nit boo xam ne waar na ma ba bàyyi naa li may def nekkate man si sànkute laa nekkoon kook bu amuloon ku ko dem di waar fan lay mujj waa ba waa Quraysh islam bu ñëwul woon yonent bi di leen kii ñoom fan la ñuy mujj subhaanallah saxaaba buñ la ñëwul woon waar ñu nekk jullit ñom fa lañuy mujj amna suñu xam nañ doon jaam ay xërem donc li ngay wax taxawut teguwut ci xel teguwul ci maam lu tax ngeen waar ngeen waar yéef teguwul ci aada teguwul ci dara say banax ba gam ba léegi déggu go ma wax lu tax nga war ma wax li nga may wax déggu go ko ci man de ba si ba si déggoo ma dëggal déggoo ma weddi xam nga yaa ngi may tooñ yaa may tuuma yaa ngi may tooñ en tout cas euh, lii dëgg góoma dëggal dëgg góoma non dëgg yaa ngi may tooñ yaa ngi may tooñ sa discours <laughs> bi ñëpp ko dégg sànq yow baylo baylo bu ko tooñ baylo baylo tooñ góoma dëggal dëggooma dëggooma waa léegi d'accord ok léegi d'accord nañ si principe bi si principe bi ah ñu digle lu baax tere lu baax d'accord nañ si principe bi alhamdulilah man déggu leen wala ma ràdd leen damay dégg mais da nga ma bëgg a tuumaal maam Cheikh ba léegi ñëwoo ci thème bi ba léegi ñëwoo ci thème bi maam Cheikh. yaa ngi déglu maam Cheikh. waa xaaral rek non eh, ah, Amadou Amadou déglu ko Amadou déglu doo déglu ngir yàlla nga teg sa micro. man fi ma nekk na rek ñu ne la na la yàlla rëbb na ay nit parce que daawuñu teral yàlla bu demee bay rëbb ay ci benn mbir ci la parce que daawuñu terewante lu bon comme loolu tontu na li wax. nar sa yone wul ci ku baye julle ku la la legi ñëwal ci thème bi naka ay baye faal yu julli du wor nan dañuy atté sharia ñu di yabal ñu atté sharia ubi sa micro ubi sa micro ma cheikh yeen wax leen ci cadre wax leen ci cadre ñak julli ak ñàkk wor gi ngeen nek rek bu leen dugg ci benen débat ndax ne ngeen loolu moy débat bi ginaaw na ngeen ci ñàkk julli damaa ñaar yëpp la mooy ñàkk julli ñàkk war ak bay faal yoo xam ñu julli du wor ay yëfa ñu leen di yebal ñuy àtte di war ñay dégradé yooyu loolu la mooy la mooy slide bi lii la ya, eh, dañu atté ay manam ci naka atté sariya gi yow foko mëna tek yow fo mëna wër wér loolu après dañuy ñu ci julli gi bàyyeegun atté sariya gi lan nga mëna tek teg ne ma lii sariya la wa ñom ñoko wax ñom nee nañ parce que dégradé du sharia ku ko def dañu wara a sa bop déedéet kuy fubal kuy fubal kuy ci dëkk bi dañ lay dañ lay lay teg ci yoon ku meesu dañuy ñëw dagg ko. xam nga léegi loolu est-ce que defal naa ko yéen yéen xëy na man ngeen a jël seen mbir bi ngeen yóbbu ko ne sariya la dama ne borom dëkk bi bu caabee dëkkam ne man lii bëgguma mu am fa. ku ne xam ne man mii wax ak yow. ah comme du charia comme du charia man maa la gën a xam ne dégradé dara nekku ci man maa la gën a xam ne dégradé xam nga dara nekku ci. dégradé dara nekku ci waaye daraa ñu ci non daraa ñu ci de daraa ko def. waaw foofu ma waxee ne ne su ma ne xam man mënu ma tëb tëb na dégradé dara nekk su ma ko waxee kon am naa fu ma ko teg dama la bëgg xamal ne la amul fenn fu charia wax ne ku dégradé dañ laa war a rey ku dégradé dañ laa dañ laa war a buugal ku dégradé am na boo amee suñ ci suñu borom suñu borom subhanahu wa taala am na mbugal mu lay xaar ak gut foofu laa bëgg a wax mooy dama la bëgg xamal ngeen ko nekkul ne. bakkaar bu ndaw la bi ngeen ko jàppee. nekkul ci cadre bi ngeen ko jàppee waaye maam Cheikh waaye maam Cheikh ku bàyyi julli mbugal mu ku bàyyi julli nga tay ko. bàyyi julli mbugal mu lay xaar. lan moo tax alquran wax ne fa waylun lil musallina. ngeen la agali agali agali hmm? bal ma si topp. dama leen di laaj rek yéen ginnaaw yéen yéen a lu tax alquran wax loolu. da ngay eggale ay fa waylu lil musalliin alladhiina hum an salaatihim saahuun an salaatihim saahuun waaw ma yóbbu sa débat da ngay firi aaya bi yow laajte woo damay laaj dañ lan lay firi déggoo la ma la wax man damaa ñëw fekk ngeen def débat nga wax ne jëm ci wàllu julli ma laaj la ne ma laaj naa la kon lu tax alxuraan wax waylul lil musallin nga ne ma àggaleel aaya bi àgg naa laay aaya bi yow nan nga déggee loolu. lu lu muy firi. lu muy firi yow laa lay laaj. donc loolu la man laaj naa la man maa la laaj fa waylul lil musallin allazina hum an salaatihim saahuun. allazina hum yuraahuuna wa yamna'uuna al-maa'uun man maa la laaj man. comme que léegi loolu. waaw déglu mu leer la déglu mu leer la. ne ki nga xam ne si tey watu dafa watu dégradé kooku amuñu benn àtte bu ñu àtte si moom rey wala lenn parce que tey nga ne sëñ bi moom moom dëkkam moom mooy digle si dëkkam lu ko neex waaye sëñ bi taxaw sëñ bi moom moo toog ci vidéo carrément ne ñi nga xam ne si du ñu julli dañoo am jagle nañ leen bàyyeeg seen jagle ñooña ñooy Baye Fall yi Baye Fall yooyu noonu ñoo tourné waat sëriñ bi jox leen ndigal ñuy wër dëkk bi ku dégradé ku lettu mèche ku sol cap ku def lu bon ñu lay lan ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñuy def ay violence ñu lay torturer di la torturer quoi légui ñom bay faal li nga xamné ci sëriñ bi mom la leen teggil mu nekk farata bok ci juroom ponk islami ñaar ben kan mo kan leen ko teggil kan mo leen ko teggil kan mo leen ko teggil sëñ Muntaxa mo leen ko dëgëral sëñ Muntaxa mo leen teggil lan mo leen dëgëralal seen ñàkk julli bi ñu nekk bay faal ci ñom droit wi ba julli dama ne ma ne ma sëñ Mountakha moo wax ne kaddu diine tey ngaa bañ a dugg foofu tey ngaa bañ a dugg foofu ma ne kat dañoo dañoo dañoo am jag dañoo am ak jagle dañoo am ak jagle loolu la wax jagle boobu noonu tey mu ne jagle jagle waa léegi kaddu diine kaddu diine kaddu diine yàlla sunu borom jaamam bu mu woo. waxuma ak yow noppi Ahmadou yow da nga ñëw sa temps. saay jarul jarul arrogance jarul arrogance de da ngay a wax wax. man moom damaa xam ne su ma. léegi Younus léegi Younus Younus yow am na loo fàtte sax moom dafa def lu mu sal leeral ko foofu balaa foofu di jàll. waaw kay fa waylu li mu sol leen. yàlla dafa ne mbugal ñeel na ñi nga xam ne si ni tey ñooy julli allazina an salaatihim saahun a nga xam ne si ni tey julli ci heure. Hmm, hmm. hmm. ñu julli ci waxtu ñu julli ci waxtu ñi nga xam ne si ni tey duñu julli ci waxtu <laughs> léegi nag yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax nañ suratul muminun boo fa demee léegi yow mi nga xam ne si ni tey fekkee ne yow da ngay julli te doo julli si waxtu mbugal ñeel na la asama ki nga xam ne dafa bàyyi julli ki nga xam ne dafa bàyyi julli yàlla suratul mudathir dañuy leeralal ma salakakum fi saxar Ah, maa ngi dégg bruit bi bizarre maa mu mel ni ku ñuy bës quoi xaw ma nag. moom la moom moom ci boppam. qalu lam naku min al musallin. te nekkul di ko mocc aussi <laughs> julli. waaye yéen ngeen am ngeen am ngeen am xalifa bi nga xam dafa toog ñu laaj ko si Baay Faal seen ñàkk julli si ñàkk woor mu ne loolu jagle la ma nga ca jawaab ba loolu la wax. loolu laa nanguwul li nga wax ne dafa am ko ko laaj ci Baay Faal bu ne ko jagle la loolu laa nanguwul. Cheikh bi tegal ko vidéo bi. xam nga ma loolu. dafa ne saa yi ñu waxee Baye Fall. mais maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a a may ma wax ñaari baat rek. pour ngeen baat rek laay doon bëggee. benn baat rek attends attends sëñ Mamadou non non xaaral xaaral sëñ Mamadou xaaral. benn baat rek sëñ Mamadou may ma may ma. ba mu déggee ba ngeen wax ba léegi waxu fi lu suukar mat dama ne leen dama ne leen dama ne a ngi wax yéen a ngi waaj màggal rek lay wax. yéen a ngi waaj màggal. màggal gi ñëw na ba pare de. waaj leen de ñu ngi. yéen a ngi màggal gi ñëw na ba pare de. jërëjëfati Serigne Touba waaj leen màggal gi. su ci wàccay màggal gi waaj leen màggal gi. nu murit yi waaj màggal gi. non c'est bon Mamadou bloqué na bloqué naa dañ perte ki yé yé yé yéegalal ca yéegalal ca ne sànq buñ ko daa daa bëri. bismillah. waa léegi yan ngeen ne lu ngeen di laaj lu tax Baye Fall yi duñ julli léegi léegi kàddu diine dégg naa nga wax fii sànq naan sëñ Muntaxa moo moo moo moo moo cautionné loolu d'après li nga wax sëñ Muntaxa moo ne si vidéo déglu allo ñi nga xam ne si ñoo am ak jagle waaw waaw yow yow da ngaa weddi jagle boobu. dama ko weddi kay. weddi bu baax sax. ko weddi. waaw voilà foofu nga defee nag ndax ndax ndax boo waa taxawal alxuraan weddi ko ndax waxee da ngaa weddi jagle boobu yaa ngi juyoog alxuraan borom moo ne ci alxuraan faxaalul lima yuridu foo koy lu ma soob lay def foo koy dugal chrétien bi eh, mën na laa wax la même eh, chose ni boo Iisaa ibn Maryam moom mooy sëñ Baylu non non sëñ Bayil waa noppil noppil noppil noppil waxuma ak yow waxuma ak yow noppil waa noppil waxuma ak yow waxuma ak yow waxuma ak yow noppil noppil arrogance bi jaru ko jaru ko nànk rek nànk arrogance bi jaru ko wàccee rek dama ne fi ñëpp ngay wax boo ma wàccee ma boo ma boo ma wàccee ma dem man man seen livre sax duma ma ci dugg exactement damay continuer rek duma ma teye dund du teye dund mais li may leeral ngeen di ngeen débat question bi nga posé man waxuma ak yow. fii ñëpp bi nga posé laa laa bëgg a répondre. fii ñëpp ngay waxal laa wax sa argument boobu sàcc léegi faxaalun li yu yuriidu suñu borom. jaamam moom moom moom bi moom lépp soob lu ko lu soob suñu borom moo ñu koy jaam waa déglul waa déglul sëñ bi déglul déglul. wa maa xalaqtul insa qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiina noppil wa nopil khul hatu burhanakum in kuntum sadiqina wa da ngay deglu way def lu sop luko sop mom moy legi bu fekke ab bay fal bu duggu deng ab bay fal bu duggu bu naray wax ngeen daggu ko après legi yeen bu ngeen di wax baylo bay ku leen dag naan ay da ngeen di wacce ak yoy non da ngeen di deglu lol taxawul ñu lay tontu wa deglu waxuma ak yow diw lay waxal wa pare nga pare nga wa pare nga pare nga pare nga amin amin amin dol ci tempo daga te moo ma ngoog waaw layu Baye Fall léegi nee nga sëñ Muntaxa moo cautionné loolu c'est totalement faux c'est archi faux du dëgg ay nar la ah. dara gënu ko di ay larax Ah. Cheikh Ibra nee na sunu borom mi ko sàkk loolu nag jaam bu ciy jéem a dugg waa noppil déglul jaam bu ciy a dugg di di di sa biir di daw ci yekkub jàngu jàmbur da waane dong sunu borom mi moom lépp moom ñëpp moom fépp sunu borom mi yónni woon Seydina Jibril yónni ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunu borom moom di doon wax ak yonent yàlla Muusa alayhi moo xëy ci coobareem wax ak maam Cheikh Ibra ne Mam sey ibra neko neko neko ko ne ko ne ko ameluma la boru julli yow ak kep ku and ak yow lolou nak jam bu sey jema duggu wax deug yalla da nga wane ndax yakub jambur bu se bir di daw da nga wane dongu ma ma indi la nak ci walu xam-xam waye xamna ni limay wax mom ah, lu yonent bi yalla wax ah, c'est bien au moins tu l'admets ma indi ahmadou da ngay deug ahmadou so waxe tay da ngay deug ahmadou xaaral déglu nañ la bo waxe da ngay déglu tam déglu nañ la yow indi nga sa lay ok li lañ soxla kuy wax di indi lay indi nga lay doote doon lañ xaar alquran nag amuñu aaya doote doon lañ xaar sunna amuñu xadis léegi nek ibra faal nako ne yalla ko wo bu mu ñew ne ko ibrafal, la boru julli ak koor léegi lool ibra wax ibra fal lañ koy fekk ci ban mbind lañ koy fekk waaw très bien yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu rañaanee suñu borom da ko foo jox ñetti xam-xam ne ko benn bi jox ko jullit ñëpp jaam ñëpp ñëpp mooy charia mooy charia bii ngeen di sukkandiku bay dingat nitu yàlla joxaat ko fa beneen xam-xam ne ku koy yeyoo xam-xam boobu wàlliw yi la koy jox xam-xam boobu faaw nga tarbiyewu tarxiya tasfiyewu topp yàlla di jaamu yàlla ba mu yenke wala xam-xam yooyu yan nag li ngeen di def mi ngi mel ni ku jël xollitu banaana di ko lekk naan moo ko neex te te lekkoo suuf bi waa déglu ma ma développé. waa da ngay bàyyi ma développé déedéet da ngay bàyyi ma développé ba pare. bàyyi ma ma développé ba pare non non xaaral ma développé pare gu ma non boo ma coupé du ma xam lu may wax doo boo ma coupé damay damay réer ci samay argument bàyyi ma développé. non non léegi maa lay bàyyi nga réfléchir sa argument léegi indiwaat nga beneen waa xaaral xaaral lay la soxla yow indi nga nee naa la Ibra Fall loolu mu wax fan lañ koy fekk yàllaa ko woo ba mu ñëw ne ko amuluma la boru julli amuloo ma boru julli ak koor nee naa la fan la nekk yow nee nga ma loolu mënuñu ko gis kenn parce que yow daf salaa salaam mu rañaane dañ ko jox ñaari xam-xam xam-xamu charia mooy lu nekk ci alquran ñett la wax kay ñett. ñett ak lu yonente bi salaa salaam wax muy xadis nga ne ma jox la beneen xam-xam mooy xaqiqa loo xam ni nekkul ci alquran nekkul ci sunna léegi lii nga wax nii lii nga wax nii fan la nekk waaw léegi nga ne nga ne. yàlla yonente ba mu rañaane ko jox ñaari bi day daw de. loolu ma ne ñetti xam-xam la ko fa jox. ñetti xam-xam la ko fa jox benn bi da koy jox ñëpp mooy charia moo gën a bitte loolu loolu xam-xamu bitti la benen bi ci top moy xam-xam bo xamanteni da koy yankawal ay sharia mo lu nek ci alxuraan xam na leeral sharia nit ñi xam na lu sharia sharia bayil ma ma wax rek bayil ma ma développé da nga poser sa question bayil ma ma développé arrogance bi jaru ko da nga may bàyyi ma développé da nga may arrogance bi jaru ko da ngay wax ma wax rek man communication la jang lamine du lek moromam bi te ñorul da ngay déglu rek ma développé wa da ngay waa man man mi ko jang ma la ko gëna xam da ngay déglu ma développé da nga ma laaj question da nga may déglu ma danel da nga may déglu ma ma wax ba daaneel ñetti xam-xam ñetti xam yi ma ko fa jox benn bi da ko wone jox ko ñëpp mooy charia moo gën a bite loolu xam-xamu biti la xam-xam boobu yéeféer xam-xam bii ngeen di bakkoo te amoo leen ko yéeféer mën na koo jàng ba gën ko dégg ab jullit am na yéeféer boo xamante ni si si si colonisateur yi la si missionnaire yooyu noonu ñëw na ba ci mm. dëkk jullit di leen jàngal jàngal jàngal xam-xamu di leen jàngal euh, science religieuse te te loolu gëmu ci dara ah? loolu loolu taxul gëm dara waaw xam-xam bi si des xaqiixa loolu nag jaam bi day jaamu yàlla topp yàlla ba leeram daal di fett génn mu ñi yenkewal ko yooyu xam-xam mu xam ko beneen xam-xam bi nag yàlla da koo ne loolu bu ko wax kenn loolu yonent bi moo ko jagoo alayhi salaatu wa salaam li ngay laaj nag sànq li ma li ma la wax. ni da ngeen di jël banaana xolit bi di ko lekk naan moo ko neex te yéen ñamoo leen suux bi ñun. léegi lii nga wax fan la amal fa ngay théorie rek li ngay wax dañ laa laaj fan la nekk. léegi lii nga wax fan la nekk lii nga wax yonente boobu rañaane dañ koo jox ñetti xam-xam. fan la nekk li ma lay wax. Hmm. li ma lay wax moom. xam nga bu baax fu mu ne loolu moom lu wér a wér la loo xamante ni waaye nag bu fekkee nit ki day wax waa waa li yàlla waxoon li yàlla waxoon yonent bi rek mënoo déggloo ñu nekk ci bàmmeel yi yalla limu wax yonent bi mëno déggloo ñu nekk ci bàmmeel té mom borom borom borom borom borom bëd yu borom borom xol bu gumba mo mo ahmadu li nga wax ni far lañ koy fekk far lañ ko bind yonent ba mu ràññaane yonent bi moy sharia moy alquran bakar banasi ak sunna lolu xam-xamu mahrifa la ñaan bi nga ne xam lolu li nga wax ni ban téré lu koy fekk lolu li nga wax ni lolu lolu lolu lolu loolu jarul malay jox ay référence lolu bu fekkee Eh, lolu xamoko lolu da nga da nga da nga da nga wara a limay leral nak leeral li nga wax demal demal gëstu dang ko xam budé bëgg ñor na la budé par parlo budé par parlo ñor la demal gëstu lolu duma duma la ko wax lima lima lay tontu li ngay wax naan ñak julli Baay fali sharia mbirum biti la amna yonal bo xamanteni la allo. man mënuma xam yow ya indi sab hadith man ba tey laaju ma yaa jékki-jékki fan sa xadis dama laaj preuve nga indi sam xadis yonente ba mu rañaane nañ ko jox ñetti xam-xam charia bi xaqiqa la mooy walu yàlla bu jaamu yàlla bu am fu mu àgg yàlla jox ko ko benn ak yonente bi doomu la ko jagleel da ko bëgg a layalee ni wax bu yàlla wax ak moom ko julli loolu mooy deuxième bi xaqiqa bi léegi ma laaj la nag yow bi bii nga wax fan la nekk man téere la ko fekk mooy fu yàlla waxee li yonente bi ñetti xam-xam yi léegi jox ma référence référence fan nekk. ñun xawuñu référence bi nekk moo tax ñu la koy laaj. léegi yow la ñu xaar nga dimbali si benn nga tëjee ko micro. moo ko tëj de man tëjuma ko da nga ko doon tëj mu bañ quoi moom moo ko tëj. Hmm. référence bi la xaar dégg nga. réseau bi moy daw réseau bi moy daw yéen ak may dégg inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar manam julli day genné ci mbossor ak bon bon sëñ bi mané lamine làmmiñ lu sa hadith bi fa la nekk sa hadith bi nga tudd ne Ibrahima yàlla moo wax nga wax sa question question bi nga poser boo ma bàyyee ba ma daaneel da nga xam li mo wax fu mu jógee déet wala bàyyi ba nga daaneel rapport kaso ngay daaneel indil arrogance boobu nag moom moom moom moom ngay jaay loolu loolu loolu du jàll. arrogance bi ngeen di jaay du jàll. waa léegi lu tax booy wax nga ne Ibra Fall lu tax booy wax nga ne Ibra Fall di ko di ko di ko jéem a sàllalu di di jéem a wàññi loo xamante ni yàlla da koo màggat loo si jublu loo jublu ci loolu. waaw. waaw. lan laa la wax léegi kon li ma la wax yow déggoo ko. am na xam-xam yoo xamante ni newul ci téere. waaw charia mbirum biti la. yéefér nangu nga ni charia yéefér mën na koo jàng ba na la koo dégg yow. waaw xam nag xam-xam bi nga xaaj waaw nangu nga loolu waaw wala déet nangu nga loolu waaw wala déet. c'est waaw ma ne ab si yéefér. du ma fi ab yéefér mën mën naa jàng charia ba gën la koo dégg am déet. ko tàntuma ci ma kon. sa xadis bi nga tudd yonente bi dafa dem ci yàlla yàlla jox ko ñetti façon xam-xam benn mooy charia benn mooy xaqiqa wala yàlla bu am jaamu yàlla bu am fu àgg yàlla am nu ko dee beneen bi yonente bi kese dama ne lii fan la nekk fan lañ koy fekk ban téere bu dee alxuraan la lii nag xam-xam xam-xam la boo xamante ah. xam-xam la boo xamante ni da ngay jaamu yàlla topp yàlla ba sa leer fet nga xam ko waxuma loolu de li nga tudd fan nga ah, réseau bi waroon naa neex de wala ban télé nga joxe non réseau kay neex na xool ko muy la nga am si réseau bi réseau bi neex na bu jëri référence référence yi nga ma bëgg a joxloo bu fekkee bu fekkee dëgg ñor na la demal nga gëstu bu fekkee nag par parloo moo la ñor toogal foofu di laaj référence man nag ah, li ma bëgg a wax danaa ko wax mooy mbirum biti la waa may déglu may déglu ma ni may tontu ma ne la ndax nangu nga mën naa gën mën na laa gën a jàng ba ko nangu nga ko bu ko may jël weer bu ko daan xadis bi nii ko la ah yéefar mën naa jàng sharia ba gën yow julit bi kon lolu loolu yoonu yoonu giddi la lolu loolu yéefar mën na koo jàng ba gën la koo yow da ngay julli yow li nga wax waxu eh bayal bayal bu ko may génn waay bayal jàpp si jàpp si bu ko may génn waay dimbali yow rek Ahmadou indil xadis ki dafay bëgg dafay bëgg a te wax na fi bi bu bi bu mu leneen moom moom dafa njëkk a wax di dafa njëkk wax di ñàkk julli bi Ibra Fall yàllaa ko woo dafa awul wala booru ok ma laaj ko loolu fan la nekk boobu yàlla woo Ibra Fall ne ko amul amul wala booru jullee koor fan la nekk mu yóbbu ma ni xam-xam la boo xam ne xamuñu ko parce que yonente bi bu mu demee ci yàlla yàlla da ko doon ñetti xam-xam charia ak xaqiqa léegi ma laajal ko lii mu waxaat fan la nekk léegi fii laa toll parce que mu nga ko tontu jox ko référence léegi mm. léegi li nga ma bëgg a fi nga ma bëgg a dugal li ma lay wax nii communication laa jàng mënoo mënoo ma dugal ci ay piège li ma bëgg a dama koy développé maanaam waaw léegi kon déglul kon déglul wala da da ngay daw da ngay da ngay ragal dégg-dëgg bi attends mbaa du keroog yaa fi yéegoon da ragal dégg-dëgg bi question directe waaw léegi charia inna san tanha anil fahshaa'i wal munkar lu tax du ngeen ci wax lu tax ngeen di julli seen xol yi di gën a bon seen xol yi di gën a am sabara lutax ngeen di julli seen xol yi di gëna bon lutax seen daxawa bi du ngeen ko dem def ci yéeféer mais ñuy ne la ilaha illallah ngeen koy def julli ñom ak yéeféer hmm? ñoo yem di sa hadith bi fa la nekk ñom ak yéeféer ñoo yem ñun bala ñoo jëm ci yéeféer kay ñi ci ñom lañu wara ndëkk bay faal bu julli ma sha allah mais dama ni yéeféer ñu bëgg a yóbbu ñoom bay faal yi sorante wuñu sorante wuñu kon da yow yow yow sa xadis bi fan la nekk sa xadis bi fan la nekk. lii mooy question bi voilà loolay sa xadis fan la nekk xadis bi nga bi nga bi nga cité léegi daa dem ko asamaan yàlla jox ko ñaari xam-xam ñetti xam-xam wala xadis bi nekk bon. dernière kii la dernière question. indil ñu indil ñu xadis bi nag bo sinon boo demee looy wax waa koñ ba. billaay léegi nga def fi 30 minutes indi woo xadis bi. boo demee loo wax waa koñ ba. Ahmadou ñu lay jaajëfal yow amoo preuve. moom de arrogance lañ la arrogance. Ahmadou arrogance. ak communication. <laughs> nee na communication la jàng macha allah. <laughs> moom moom arrogance sax dafa arrogance moom parce que moom bëggul kenn wax. <laughs> non barki yàlla doo ji. Adama Sonko non kii am na ku naan jël ma depuis sànq jëloon naa la quoi jëloon naa la sànq yow da nga doon laaj ay question borom costume bu rafet bi tam nee na ñëwaat. Euh, Cheikh euh, bisimilah euh, ja ja Cheikh jaar di leen màggal. gis. caane. ñoo ngi bindaat waaw boobu léegi ñu ngi ñu ngi teewlu di déglu. Mm-hmm. déglu nañ débat bi débat bi yëpp mais. comme li nga wax dafa am loo xamante ne daanaka moom jullit jullit yëpp ñoo ci ñoo ci dëppoo képp kuy jullit rek yaakaar naa ne loolu moom amul sikki sàkka ndax lu yàlla wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jottaluñu ko rek war waratuñ cee am problème boobu war naa war nañ ko am quoi muy kudul julli ak kudul woor kooku moom ab yéefar la kooku moom kenn mënu ko considérer lu dul yéefar man man mënuma ko considérer lu dul yéefar mais nit ki tamit euh, mën nga ko jari mën ko ko jariñ te doo ko te doo ko lor parce que tamit gis naa ne parce que nit ki soo ko su nekkee ci loo xamante ne àdduna bi yépp ñoo àndandoo di ko seetaan nga laaj ko mu ne la daag dul julli du ab yéefar la nga bëgg nga nga indil ko ci Baye Fall yi te mu ne la man mi biir Touba laa dëkk uh-huh. nga insister pour bëgg ko waxloo ci làmmiñam ne ko mu ne Baye Fall yi ay yéefar lañu kooku ëllëg su ko waxee fii buñ ko ci loree di nga ci am part de uh-huh. responsabilité ok kon yow yaa ci voilà pour sécurité ni pour sécurité yenn saa yi ngeen sóoraale sécurité ñuy wax pour ñu seen sécurité quoi daa ci bàyyi xel voilà loolu da waaw loolu daal laa ne woon dinaa ci participer kontaan naa yàlla yàlla yokk xam-xam bi te leeral barakallahu fi ok jërëjëf jërëjëf shukran jërëjëf wa rahmatullah soxna si maa ngi lay ziar bu wér a wér di ziar alpha ñu ngi lay ziar di di ziar baylo yunus que tal Eh, <laughs> man salaamaaleykum Armando est-ce dama bëggoon indi benn contribution ba nga xam ni rek man je uh-huh. nga xam ni eh, ñi ci ay caaxaan lañ nekk billahi wallahi ci ay caaxaan lañ nekk. lu ci waay def lu dul jaamu jiwoo yàlla jéem a xam sa diine topp ci nit naan boo dee mu yóbbu la àjjana yaa ngi nax sa bopp. man sama yaay président daayira la woon. présidente daayira la woon chaque année wallahi azim da daan dajale xaalis di ko yóbbul sëriñ bi Touba benn sëriñ du mu wax tur bi parce que ñëpp ñu bari xam nañ ko wallahi azim gis nga bi mu génnee àdduna avant muy génn àdduna la waxoon ni bu ma génnee àdduna na ma na ma diw jullee ñun ñëpp ñu nangu ci loolu keroog bi muy at génnee àdduna ñu yóbbu ko ci jumaa ji sang ko ba pare parce que man juste dafa ma fekk ma ma nekk vacances Sénégal biñ ko defaree ba war ko denc sëriñ bi ñëw gaare otom ñu ne ko xaaral ñu génné ñu génné néw bi mu ngi ci bir uh-huh. xam lu mu def ci suuf si mënul munul xaar ñuy munul xaar ñuy génné néw bi mu toog mu parce que lool temps la quoi da koy perte ci suuf ci ñaan ne ne ne ne ne dem leen sotti su ngeen ko su ngeen ko dencee ba par ngeen sotti ko ci bammel wallahi alazim man kérok avant booba laa pare woon ci ñoom mais keroog laa gën a pare ci ñoom nga xamante ni ko xam ne bi mu daan dund dafa la jàkkaarloog yow ne la su ma génnee àdduna nag ma jullee nga fayee ko loolu ci kanam yi njobootam wallahi azim lu ci waaye def lu dul jaamu ji yàlla fi mu toll ni Sénégal a ngi tàkk ñoom ñëpp ñu ñu lem seen genn toog ci kenn waxu ci xaalis rek lañ gëm xaalis lañ gëm billaahi kese moo leen tax toog de xaalis moo leen daxa toog jongama yu rafet rek moo leen fa bàyyi ils sont tous pareils ñoom ñëpp a yem kenn normalu ci parce que kenn dundewu ci kenn kenn dund ci sunna kenn dund ci farata li yàlla wax dañ koy jël teg ko fële li leen neex lañ xam te fi mu su fekkoon ootee gàmmu la mbaa ootee màggal ñu ngi dugg ci ñu ngi dugg ci réseau yi di wax fuñ mën a réseau buñ mën a toog ba communiquer pour yëgal ko nit ñi pour ñu mën a ñëw ñu ngi koy def mais fi ñu toll ni Sénégal a ngi tàkk déggoo kenn ku ci ngang làmmiñam parce que ñoom ñëpp c'est des corrompus ngeen baal ma loolu rek laa ci bëggoon wax di leen jaajëfal bu rafet di rafetal di rafetlu vraiment seen liggéey di ñaan yàlla yàlla dolli ñu fanu wu gudd may ñu wér te ci sunu réew ma jàmm amiin amiin amiin jërë jëf waxtaan bi neex na asalaamaaleykum na ngeen def. Adam Sonko ña ngi waaw man nag damaa bëggoon a leeral mais damaa bëgg bala may leeral comme ni ngeen dégloo ki ngeen dégloo moom après lu ngeen may laaj ma tontu leen. parce que des fois nit bu wax lu leen di arrangé da ngeen ñu tëj micro wala ngeen wàcce ko man su ma leeralee après amul problème. Ah. Adam Sonko mii sànq yi wax moom ne xawma léegi daa bàyyi ñooñu léegi moom bu bàyyee ñooñu lu mu wàññi ñooñu tey la addiye ji a bari tey la màggal gi gën a neex. sa sa waay sa waay damaa lu Adama Sonko damaa lu Adama Sonko ñun la. parce que yéen sànq dugg Adama Sonko dugg def salaata lan moo tax bu ñu wax leen. waaw dafa commentaire yi bu ñu. nga ne parce que tey a neex. loolu du àdduna xam lolu li ngeen bëgg ngeen xam ko mooy li ngeen di bañ a dégg gëm fi pour sant dañ lay bol sobe man ngeen dama li voilà merci au revoir ne baa ngi ñëw ba léegi lamp fal bismillah ko moo gën quoi balaa muy commencé baa ngi ñëw ba léegi dara dara ci dara parce que adiya baangi kon Fall dafa xorow na ah? Lamp jigéen. Lamp Fall jigéen la asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi déglu lu fa nekk dafa bëri bir wi dama doon déglu vraiment am na solo. Mhm. Lamp Fall lañ may woowee. Eh, oustaz oustaz jëlal jëlal yéegalal Thiané Thiané Seck sànq yéegoon dafa doon def na demande bi sànq Thiané Seck xool ko si liste bi nga yéegal incha allah. bisimilah Fall maa ngi jéegal. maa ngi wax ne waxtaan bi waroon mën nañ ko waxtaan te du ñu daal di sant wala comme ku ne di xëcc di jëmale sa boor. Mm-hmm. nekk famille boo xam ne am na ay baay Fall am na ñi nga xam ne nii nee nañ sunna képp la ñuy dund te ñun ñëpp dañoo ne ci jàmm. Mm-hmm. man mii di wax ak yéen Baye Fall la te ko te mu dëgg lu doon lu wér ci man. Mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall rek waaw waaw waaye fekk ni. Mhm. mi ngi naan dëkk bee ngi tàkk te sëriñ si kenn waxutul waaye ñun dañuy delluwaat ci lu sëriñ Tuubaa waxoon bu ma demee ba newatuma fi ngeen jàpp sama doom yi doon samay doom bu ngeen gisulee. Mhm. ngeen jàpp sama xasida yi am na li nga xam ne maa xam ni sa mbokk la de. waaw moom la ñuy teewlu moom la ñuy teewlu incha allah Lamp Fall ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi tuub de bruit bi moo bari fii. te oh, ma bouger maa ngi jégalu. am na li nga xamante ni da ngay ne ci yoon woo xamante lay leer na yow sa mi nga nekk kat lu wér la. waaye nag raxe yi moom du ci ñàkk. nga gis ne lii kat riirandoo bi lañ ci indi mais ñi nga xam ne dañuy. ci li ñu ne ci yàlla képp lañ lañ lañ ciy doxal amuñ ci daray caaxaan teg seen njaboot ci siraatal mustaqim kon ñun suñuy waajur nu ñu ko defee loolu man pour man jarul de débat bi ñuy wax ci Baye Fall Baye Fall lépp leen war ñu ngi koy def amuñu dara lu dox suñu diggan ak suñu borom de sëñ bi. léegi yow lu wér laa lay wax ci benn question. yow da julli. non non man damay julli loolu du du débat bi soxna si ka baal ma. non débat bi mooy ñàkk julli Baay Faal yi loolu mooy débat bi. Ah, julli Baay Faal la. waaw débat bi mooy ñàkk julli. lu ma defoon nag yëngu yëngu toog bu mu toog ñàkk julli jagle la loolu mooy débat bi. et soo duggee nga ne yow Baay Faal nga dama julli wala doo julli pour mu xam fan laa jëm comprendre. wér na wér na maa ngi lay doo a dégg jërëjëf. bi nga nekk kulli xaal jëm mi wax ni Baye Fall ñoom ñu ngi ñu ngi def lu leen war waaleykum salaam hada xayru sax loolu wérut ñu ngi def lu leen war lu leen gën a war mooy nekk julit waaw Thiam léegi te lool du nekk lu dul nit ki dafa taxawal juli di woor daa taxawal lislaam ku màbb loolu màbb nga lislaam donc defuñu lu leen war waaw ah, bismillah léegi caane baal ma rek Lamp Fall mii laa bëgg mu eggali tuuti rek Lamp Fall yaa ngi dégg waaw wàcc na pare na kay caane